ñi ma nabi sëñ Bas nag ñun daanaka ca kër ga la ñu yaroo waaw daawuñu fa jóg waaye nga xam ne gis nañ ko mu di ko def ci yoon wi mooy mi ngi woo taalibe yi ci liggéey Serigne Touba ak it euh, di dundal yëfi Serigne Touba di dundal it di fi maam moom bàyyi woon ak li fi bàyyam bàyyi woon doon jàmbaar lool nag euh, taxaw lay daara di it euh, màggal gi it mu di ci jàng ay kaamil di ko defal bàyyam ci woo it bépp jullit bépp taalibe di ci woo bépp kilifa koo xam ne goo xam ne yaa ngi ci yoon wi muy lu rafet loo xam ne ay maamam bëgg nañ ci kontaan nañu ci ndax alquran yi ñuy jàng mu doon gëneel dina di loo xam ne dina leen fekk fa ñu nekk muy loo xam ne képp ku ne ci ñun ñaan nga bàyyi fii ku mel ne sëñ Bassirou Lo Alaram boo fi jógee mu la defal comme li muy defal baayam ñun nag ñu ngi koy sant ba ñu doonee tout tànk ba léegi duñu mosuñoo jog ci këram ni koo xam ne it njaboote na njaboot goo xam ne ba boole ci sax loo xam ne daanaka bokkut ci njabootam muy ku bëgg nit euh, koo xam ne sëriñ si yëpp ay xarit lañu ay xarit lañu ay xarit lañ lañu ci moom muy koo xam ne Touba Mbacké gi xam nañu ko Touba yëpp bëgg nañu ko am nañu ci moom cofeel ba ca Dakar ca Thiaroye Azur ca Diamaguène muy koo xam ne mën naa ne Sénégal ba bitim réew ñëpp xam nañu ko ci liggéeyal Serigne Touba ci bëgg lu baax ci it euh, bëgg mbokk ci it bëgg euh, yëfi sëriñ bi loolu nag euh, dañu amoon ci loo xam ne dañ ko témoin ci sëñ Basiru si Serigne Basiru laa deram di it kontaan lool bokk gi ñu bokk ak moom jàmm te lool ak njaboot tamit mu teg leen ci sax yi mustaqima jàngal na leen yar na leen ci diine mbayit ku ñëw ci kër gi di nga xam ne loolu lu am la waaw jërëjëf maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu samay tànk tey fii ci kër ci jàmm gën may seet si kilifa ak diine gii ma fi fekk te di Serigne Bassirou Lo Ali Aram mi mi nga xam ne moom la fi yàlla teg tey muy kilifa gu mat kilifa kilifa goo xam ne ci ku nekk xam na doxinam ak ci lim nekk mooy eh, ci lim war a nekk mi ngi fi mu war a nekk nekk fi mu war a nekk li ma wax léegi juróom benn weer yi mi ngi fii génn fii nekk di jàngale ak di tabax jumaa ji ku xool barab bi ni meloon xool tey ni mu ko def ak liggéey bi mu fi def ci kër gi ni mu mel ci jàkk jumaa ji ni mu mel ci franco arab bi nga xam ne samp na ko fii nga xam ne bu ma doon da wax lan moo gën a sedd sama xol ci lim fi def mooy franco arab bi nga xam ne def na ko fi ba def fi juróomi kalaas bay def juróom benneelu classe ak ni nga xam ne njàng mel na ko ci dëkk bii ni mu fi nekk yitte tey li fi nekk ci ay tuut tànk yu war a xam mm, ni mu toll ak ni nga xam ne ñi la fi njàng amee jafe-jafe su fi liggéeyee lu toll nii man dama ne liggéeyal na sëriñ bi waaye liggéeyal na réew mi liggéeyal na yàlla waaye liggéeyal na réew mi ndax nit bu fekkee da nga bëgg a defar am réew dangay fexe ba nit ña defar xale yi soo defaree xale yi bu xamee danañ mën a def te ku mën a ku xam mën a def def rek sa tumuranke day wàññiku te it yow du yow dootoo indi jafe-jafe ci am réew. xam nga li ma fii barab bi moom sama baraba wax naa ko léegi li ma wax ci biir. nee na ma léegi fii bi ma fi sanc jafe na am na am luñ waxante ci moom pour euh, sanc bi jafe woon na courant bi jafe woon na classe yi aussi jafe woon na fii nag li ma ko wax léegi rek lu ma lu ma fi deful rek lu ma amut la waaye lu ñu am rek danañ ko def fii ndax dafa am lu ñu booleeg moom te barab bi day barab dafa bokk ci barab bi cosaan yi nga xam ne dafa bokk ci réew mi barabu cosaan la barabu cosaan la ci dëkk bi barab bu amab dayo la bu am culture ndax man fii laa yaroo kon euh, suñu taxawaay moom wax na ko ci biir xëy na dana ko wax ci cérémonie bi ñi fi nekk aussi xam nañ ko ndax courant bi fi nekk maa ko fi indi te jamono boobu yàgg na moom daal ñi ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yal na yàlla dolli kàttanam ndax kilifa diine la goo xam ne bu ñëpp defoon ni moom réew mi dana am jàmm bu royukaay la aussi bo ndax ci lii rek la nekk toog fii di jàngale nekk ci diine di dimbale nit ñi di jàppale nit ñi loolu mooy doxinu Serigne Bassirou Al Yaram sama kóllëre ak moom nag dafa jiitu man may nekk ci commune Touba mm-hmm. waaw dafa jiitu ndax ku nekk xam na ne mbokk la ci ak mbokk la ci ñun ku nekk xam ne ni mu toll ci xur wi ci juróom-ñaari penc kànk yi ak lim bokk ak ñoom loolu mooy li nga xam ne mooy sama tànk tey yi kon nag may sant ñi fi nekk ñëpp di leen nuyu di leen dalal jàmm di leen sargal di ko ñaan mu ñaan ci darajey bis bi ci alquran di ñu fi wax ci ak xasaayid yi ak taalibe yi fi nekk ñu ñaan yàlla def jàmm ci réew mi yàlla def jàmm ci dëkk bi di ñaanal xalif sénaal de mu nit yàlla na fi yàgg te wér waaw ñu leen di ziar yéen ñëpp te di leen nuyu te di delloo sunu ziar jëmale ko sëñ mun taxa di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér yàlla na yàgg ci moomeem gi yàlla na ko yàlla dimbali ba mu mottal li nga xam ni sëriñ Cheikh Sidi Maxtaar sumboon na ko ba sumb ay sumb boppam ñu koy ñaanal si barke Cheikh Ahmad Bamba ñu ngi nuyu bu baax boroom bés bi sëriñ Bassirou sëriñ bas suma digganteeg moom dafa yàgg lool nee naa fanweeri at la wala fanweeri at ak juróom kon yàgg na lool kon ñëwun fi si ndombo tànk gu nu am njëkk nañ fi nuru sunu cëru bopp ndax moom su amee bés ñépp dañ ma war gis ci wetam duma bokk sa gan ya mais dama bokk ci ñiy teeru gan yi ndax moom suma lépp la ñëwal nañ fi aussi sunu parti PDS ak président lay Ablaye Wade ñépp xam digganteem ak président lay Wade mu koy jàppale jamono yu metti di ko ñaanal te dara taxul lu dul sëriñ tubaa yàgg nag ko wax ni ko sëñ tubaab bi nu bokk moo ma ñor ba may jël sama temps jël sama xam-xam yëpp jëmale ko si yow président Abdoulaye fu mu ko gis sama xarit la koy wooyee ndax xam na ni kii yàgg na ko jàppale kon nu ñëw fi si turam ak turu parti bi yëpp ñëw fi aussi ndax moom jàppale gu wóor la noo jàppale dinu taxawu biir duñ taxawu bitti moom ay ndomba boolewunu ay ndomba boolewu ndax ba ma ko doon xam booba avocat la maa ngi soog a door kon fi nekk jaax nañ fa ñépp ma xam ak moom waaw su nit dee wax sax si sama kanam ba tudd ko daf may wax sax xarit moom it wóor na ma ni ma koy wax ba tudd ko day wax ni a sa xarit ba ma dikkee ndax ànd bu yàgg la moom nag wax dëgg yàlla naw naa ko lool ndax ni mu àndee ak man bu jëkk bi mooy ànd ak man xam ni man taalibe sëñ Touba laa moom muy taalibe sëñ tubaa di di am cër si kër sëñ Touba loolu déjà daf ma jàppe sëriñ bi waaw ndax moom ku fonk sëñ Tuubaa la ku bëgg sëriñ bi loolu bokk na si li ma jëkk xëcc si moom ndax man su ma sañoon sama dara du génn sëñ tubaa kamay dem di ko dig la digaaleeg mbirum àddina day doon koo xam ni wax dëgg yàlla mbiram yëpp daf koy sukkandi sëñ tubaa waxuma xam-xam bu sell bi lu ma jaaxal sama àddina si lu jëm si mbirum diine mbirum xam-xam moom laa koy laaj te lu mu ma si wax téere la lu mu ma si wax téere la damay toog yenn saa rek dégg rajo bi waarekat yi ñuy wax si ay wàllu taxawaay wàllu jaamu yàlla si yoo xam ni moom posé naa ko si question booba fekk na ma jox na ma tontu li bu yàgg mu doon kon koo xam ni xam-xamam daf ma doy koo xam ni euh, euh, baatinam daf ma doy koo xam ni jox boppam Sëñ tubaab ba mu jeex tàkk mu doy ma looloo tax ma jël ko mu am cër bu rëy si man nag cër boobu àddina bi yëpp xam nañ ko lu may def man ak moom ñoo koy ànd defandoo ndax lu may def li nekk mu yëg ko dugal si loxoom ba mu mat sëkk euh, moom nee naa ko am na loo xam ne de wax dëgg yàlla dallu la mooy bokkuloo ànduloo bokkul si ñi nga xam ne dañu ànd ak ñun ba yàlla def nguur gi kay tey nekkatul sunu loxo nga am beneen melokaan moom nam nu jàppee woon rek discours ba mu daan wax ba ma nekkee aboka discours ba mu daan wax ba ma nekkee ministre tey discours boobu lay wax tey sax daf ko gën yokk daf ko gën yokk ñëpp di xëccu di wane fépp ni Madické sama Madické la loolu wax dëgg yàlla nag jamono ji jax na ñu wax ba ñëpp dégg ko parce que loolu exemple la exemple la waaye nag aussi moom mënul doxale lu dul noonu ndax dafa wax ni sëñ Touba la ma jàppe gannaaw suñu diggante bopp sëñ Touba la ma jàppe kon moom du si dellu benn yoon gannaaw moo taxit tey bés bi mu amee euh, euh, euh, mu ñëw ñu ñëw ànd ak Serigne Cheikh ñëw ànd ak aussi sëñ Modou Rokhaya ànd ak délégation Mamor Sarr ak délégation Ngumbukan ak délégation bi nu àndal pour wan ni kat ñun naam ñëw nañ fi suñu jëmm bopp waaye aussi ñëw nañ fi su suñu si wàllu politique bi ñëw aussi kër gi dafa bëri ñun fee jàppale di soxna maam jaara waaw di soxna mbenn ndaw ñëpp noo jàppale si liggéey bi nga xam ñu ngi koy liggéey jëmale ko si wàllu politique lii yëpp moo nu booleek Serigne Bass Serigne Bass nag moom wax dëgg yàlla su amee bés ñuy ñëw dana bari waaw ndax ñi ko doyloo ak ñi ko gëm bari na lool rawatina ñi nga xam ne fu mu toll teraanga mi ngi jóge ci loxoom jëm ci moom kon ñun daal àddina bi yëpp xam nañ ko ñun duñu ànd ak nit di am complex di wax diw daf noo jàppale moom mi ngi may jàppale biir ak biti waaw fu fu ma mënul àgg jëmale ko si jëmale ko si rajo bi ba ñëpp dégg ko mm-hmm. man danaa wax ni mi ngi may jàppale biir ak bitti te jàppale googu ak ànd boobu amuma si rëccu mm-hmm. amul benn yoon ko ànd naa ak moom fanweeri at boo xam ne amuma benn yoon rëccu mm-hmm. na na ma ko doyloo woon tey la gën yokk waaw ndax lu ma wax li nekk di tomb teg naa sama loxo sa tomb boobu loolu la ñu àndee kon wax dëgg yàlla ñu ngi koy sant di ko gërëm te di wax ni ñun amuñu lu dul sëñ tubaa suñ tubaa la bëgg suñ tubaa la ñu doyloo sëñ tubaa la jox suñu bopp loolu nag euh, bokk na si li gën dëgëral sama diggante euh, defe naa ni Serigne Cheikh war na si man sànni tuuti kàddu <laughs> jërëjëf. tey jii moom bis la boo xam ne am nañu mbégte mu rëy comme ni ko maître ma dikkee waxee rek sëñ Bass moom day koo xam ne dafa yàgg bëgg président Ablaye Wade yàgg bëgg ma dikk mii lool. nekkoon it wëllëre suñu waajur lool sëñ Baara Doli mm-hmm. euh, moo tax bi bis bi jubsee maître wooñu ne ñu ah man sama bopp maa ñëw ànd ak yéen ñëw teew ndax bisu sëñ Bas moom il faut rek man maay ñëw teewal sama bopp nun ñu rafetlu ko lool ànd ak moom def délégation ñëw teew si ci bis bi euh, mu doon bis bu am solo ndax sëñ Basiiru ni mu toll ci réew mi toll ko ci àdduna mm-hmm. bisam day bis bu rëy ndax day jëm joo xam ne Serigne Touba rek la bëgg Serigne Touba rek la gëm Serigne Touba lay liggéeyal kon bisam ñun ñëpp dañuy sawar pour ñëw ci. Euh, ma sa kaddu yi cant rek waaye nag sant fii waaye dañ fokk ñu santaat ci base ba ci cérémonie ba ndax euh, ku def euh, lu mag fokk ñu wax ko ñu mag wala su ko nëbbu ndax yàlla ci boppam moo wax na wa amma bi nimati rabbika fa addis Euh, dafa ne bu lee xewalee na nga ko waxtaanee ndem yàlla bëgg bu la defalee nga wax ko as ci doomu aadama mais bu dee jëf yi rafet nag kon nag euh, euh, sëñ ma dikke li wax dana yàgg lool te mu gore lool mm, man lépp lu ma wax rek ma daa dégg sëñ Abdoulaye naan du ma gërëm ku ma deful dara ay man noonu la xa xaw a mel waaye du mën a bu jëf bu la jëfalee te jëf ja moo ko def ci war boppam doog na bu da ko waxtaane ba ku la sopp dégg ko ku ko sopp dégg ko ku la noonu mu naqari ko ku ko noonu mu naqari ko ndax teraanga bu ñu ko dee wax toujours say soppe da koy bëgg ay soppam da koy bëgg wante nag jaar na ci man nag teraanga yu bare bari ndax àddina bi ba la seqal seq maag waa euh, Tuubaa rek toq maa waa Sénégal rek réew yëpp réew mu nekk maa nga fa ma toogee fii ci kër gi daanaka ci bés bi dinaa jokkoo daanaka réew yëpp mën naa ne te réew mu nekk ak la ñuy kenn ku nekk la ñuy seq waaye nag ku gën ci li ñuy seqal yàlla wàcce gu ci ndax man li ma gën a fonk mooy nit ku fonk nitam euh, man loo mën a def rek boo ma cofee man gisatuma la nga yor te damaa fonk nag loolu mooy li ma gën a neex ci moom di ko ñaar li nag eh, yàlla may ko li mu bëgg nit ki nag yaa xam li nga bëgg la gën ci moom tam bëgg ko yàlla na ko yàlla jox ci jàpp na la président Abdoulaye Wade nag ba eh, wax noonu ci la xam jaxasoo président Abdoulaye Wade dañuy itam eh, booba du bi mu ne amee parti booba 73 la boobu amagul parti moom moom mi ngi set set di conk fa bu doon nekkoon fekk fa dana ko jëlal sama benn jigéen mënoo duma fay ma jox ko jox xay mën a du jël sama dërëm defal ma ko na ma ko bëggee 74 mu am parti ñu jëkk jënd carte ci parti boobu di set di doone ci la bokk ci la bokk bis bi sorona ba génnee rek ba xam ne am na parti ci ngoon laa dem 17 yi doon jënd fu carte mooy waaye nag bu jënd carte yi nag carte xam nga carte politique loo xam ne wala yeew fi béeru la mm-hmm. jukko jaama yeew waaw ah, jukko <laughs> jukko mooy yeew di asgor mm-hmm. ah, jukko jooyee nag yeew ma ba teq ma dikke eh, teqaale ñeneen ñu mel ni moom mm-hmm. am na ñoo xam ne ba mu leen teqalee dañoo xaw a daanu ma jégg leen jàll <laughs> kon nag su ma dikkee moom ngor gog googu ma am ba ànd ak nun ba léegi di jëf ci nun ba léegi fa kem kattanam te lu muy jëfit dun ko ko forcé ko ko moo koy jëf ci war boppam euh, loolu war day wane ne li muy li muy wax dëgg ndax ba ba ban léegi du benn ñaar fan xam nga mën naa jëf tey jël su jëf suba ba ëllëgee nga ba tunusal ndax euh, loolu nag lépp du ko ci fekk euh, waxtu nekk it noo ngi ko mu nekkee ci biir réew mi ak bu ma nekkee bitim réew duñ umbante ci dara di ko nag baax di ko gërëm di gërëm ay mbokkam yëpp nag di ñaanal ko ñaanal ay njabootam yëpp goñ mee xam na ci dara ndax xam goñ mee Espagne ga mu nekk dëkk bu mu ci am na ci dara te danaa koy répété ndax man boo li li li wax léegi ama bi ni météo bi ko dis bu leen defalee da koy wax ma ko ma ko lu ma koy defal danaa ko naan yàlla ak ma dikkee <laughs> ndax ma dikkee dañ koo seq waaw loolu nekkoon noo ngi koy sant di ko gërëm di ko séeréel mbokk yi di ko séeréel ay bokkam di ko séeréel mboolem talbi yi bu ndee ba fekkee cérémonie bi it mhm. naa ko wax bu gën a jot ndax man comme li ma wax nëbb teraanga la ma waaye defa wax ko ku ma deful du la xas waaye du ma la tudd nag ñoo ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci sa tur ak sa sant di leen nuyu itam di yëkkati sunu kàddu jiital nuyoo bu xam ne ñu ngi koy joyal ànd ko ak njaboot gi xam ne ñoo tënku ci sëriñ bi te buñ ko waxee moo di ñi bokk ak sëriñ Basiiru sëriñ Ale Aram ak sëriñ Mor Aram ak sëriñ Mouhamadou Lo Dagana ak mbokk yépp yi nga xam ne ñoo bokk si rëqu jëkkumba te daje ci jataay bi ñëw ànd ak sëriñ bi bis bi ak ñaan gi ñu yëkkati sunu kàddu ci turu mboolo mi nga xam ne ñoom la ñuy tudde sët ak sëtaati sëriñ ale aram loo ak fu ñu mën a bokke ci ndey ci baay ak nu ñu mbokk mën a bokke ak sëriñ bi te ànd ak sëriñ bi liggéey bi ginnaaw bu ñu santee yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant nañ sëriñ Tuubaa xaadimu rasuul tey yeesal sunu njëbbal ci sëriñ Basiiru mi nga xam ne moo toog ci jataay bi di sunu kilifa te kilifteef gi tàmbale ci wayjur wi tegu ci sëriñ bi tegu ci itam kilifteefu li mu nekk ci bopp njaboot gi nga xam ne tey jii mooy jëmmi sëriñ Ale aramloo ci kaw suuf si eh, sëriñ bi nag buñ ko nuyoo rek dafay mel ne jataay bi mooy gàtt ba duñ mën a tudd njaboot gi yépp waaye képp ku sëriñ Bachir bokkal te muy góor wala muy jigéen muy doom wala muy soxna wala muy jarbaat ñoo ngi lay jox sunu kàddu jox la sunu loxo ubbi sunuy xol fas yéene ànd ak yéen fa yéene bokk ak yéen fas yéene jokk ñu ànd liggéeyal sëñ Touba ci ginnaaw Serigne Bassirou te sëriñ Bassirou ay mbokkam rek ñoo ànd ak moom wala liy ëpp ci ay mbokkam ñoo ànd ak moom ci jataay bi tey jii. te kañ sëñ Touba day ko xëy ku jàpp ci moom loo yàgg-yàgg loo sonn sonn bés dana ñëw mu fay la te bokk na ci liggéey sëñ Alé Aram li mu ko fayee sëriñ Bassirou mii tey jii ndax ko xam ne 1878 nga ñëw jamono. génnaat àddina 1952 moom mu fekk ko jamono juróom-ñaari at 1945 ak 1952 sept ans rek la Serigne Bassirou kon mel na ne lu mu xam ci Serigne ale nii may def la ciy def dañ ko koy wax waaye aggul woon ci xam-xam wala ci man-manu mën a dund ak baayam ba xam luy baayam waaye tey jii Serigne Cheikh mi ko wuutu woon Serigne Dame mi toppoon ci moom suñ borom dogal na li ñuy baax baax liñ fay nekk-nekk suñ borom joxu leen tawféexu ñu feeñal Serigne Allé aram doonte ñoo ko fi nekkaloon moom mii nag la yàlla may mu jël ay tànkam génn àddina di ko wër di dem ci àll bi gox bu ne ma teg fa tànkam fa mu dem liggéey li fa sëñ Tuubaa daan fa kéefar yëkkate fa lislaam taxawal fa ak njullit génne fa xam-xam loolu la sëriñ Basiru nekk ci Europe moom la nekk Asie moom la nekkee Amérique moom la nekk senegal moom la nekk ci biir Afrique gi yépp bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu bu baax noo ngi leen di siyaare noo ngi jégglu tey jéggale noo ngi ñaan ci yàlla mi sunu boroom yàlla na yàlla boole nu jéggal ci kattanam ak yërmandeem su ko defee nun ñépp nunu maase wax alhamdulillahi rabbil alamin dellu sant yàlla sunu boroom moom mi nu may ndëgëni ci daaw nu teey woon fi nii mu sàmmal nu boppam ba nu dellu teewaat ko nii noo ngi dellu di ko ñaanaat nu teewee ko ay déwén yu baree baree baree bari te bu nu ko teewee yal na nu ko tal noo ñaan yal na yàlla defal nu yàgg fekke temandako tal sëriñ bi kàddu yi yu gàtt lay doon cant la rek ak ngërëm cant nag moo waral ndollan nun ñi nga xam ne danoo fekke woon ci sa wayjur wa tuuti aslëf mu jóge fi sëñ seex jàmm gën nekk fi ak sëriñ daam ba ñu dem bàyyi la fi badam muy wax na ko sànq jaajëf loo walam jaay dafa ne doomi mbëri jàngil bëree na nga jàngi bëree des na la masa ñam waaye noonu ñu ci fekkee woon démb fekke ci aslëf tey sant nañu bu baax sunu xool sedd na sunu xel dal na noo ngi amit yaakaar boole ci di nuyu bu baax boroom bés bi waaye bala may ñëw si moom damay dellu rekk sama ñaan jëmale ko si Serigne Cheikh di Makhtar Serigne Cheikh kenn mënu ko fàtte liggéey na fi liggéey bu kawee ñun nag daf nu jëloon taf nu ci xolam awma fayam ci bëgg gu ma bëgg awma fayam ci kiiraange ngoo xam ni moom la may defal guddi ak bëccëg awma fayam ci taxawaay bu mu am ci man yàlla na ma ko sëñ Tubaa fayal ba mu mat sëkk sëñ Cheikh murit yépp ak jullit yépp ñu ngi koy ñaanal yàlla naka yàlla yokk leer fa mu nekk di ñaanal sëñ Moustapha mu àggale sumb yi nga xam ne yëpp sëriñ bi sumboon naka sëriñ Bass ñu ngi lay nuyu di nuyu mbokk yi ñu fi fekk yépp di nuyu soxna yi di nuyu ñépp te di ziar bu baax a baax dama ko waxee woon sa biir rek laa koy wax fii man ak yow sunu ànd dafa yàgg lool fanweeri at ak juróom booba avocat buy soog a tàmbali si laa la xam waaye na ma la xame woon na ma la doyloo woon démb tey la rawati doy nga ma si biir doy nga ma si bitti kuy diisoog yow laa néew na lu ma seq sama àddina tànk boo xam ni diisoowuma seeg yow ndax doy goo ma doy doy googu nag danga ma ko doy si fànn yépp man sëñ tubaa laay xeeñtu sëñ tubaa laay wut te su ma sañoon samay mbir dara du si genn sëñ tubaa te sëñ tubaa boobu ku ñëw xam ni da nga jeex tàkk sëñ tubaa ku ñëw xam ni danga nga bu baax si sëriñ tubaa ba nga xam ni samay mbir fu nu toll mën ak yow ñu ngi diisoo di waxtaan dëkk boo nekk si àddina bi numéro téléphone ba am naa ko ba léegi rek laa lay wax ni la sa numéro téléphone Amérique dama ko jàpp par cœur ndax sa soxna yi nekk fii xam na ni yenn saa yi su ma wootee numéro tëju man leen ban dëkk la nekk su ma leen wooyee jot leen ni ma dëkk sàng ma la man leen am naa numéro boo bàyyi leen ma woo ko ndax suñu diggante ni mu mel jàpp nga ma jàpp gu wóor jàpp nga ma jàpp sëriñ jàpp nga ma jàpp xarit jàpp nga ma jàpp doomu ndey te sëñ baskat yow exemple nga lu tax exemple nga ndax kat wax dëgg yàlla képp ku la gis xool may yi la yàlla def may yi la yàlla defal su gëmee astuut ci yàlla dana la jël taf la ci boppam ndax kat ku la gis xam ni boroom cër nga boroom cër nga ci doxalin wi boroom cër nga ci xewal yi la sunu borom defal boroom cër nga ci ko jëflanteel loolu man mën naa ci seede lu bari waaye nag aussi borom jukko yu rafet nga parce que man jàpp nga ma jàppoon lu jiitu ma am ndomba jàpp googu lu jiitu ma am ndomba tey la jàpp gi gën ëpp solo nee naa la nag ma daan joxe sa tànt di ma jox kàddu ñëw teral ma wane sama jëf tey la rawati loolu wax dëgg yàlla lu am solo la bés bi nekk ma dajeeg nit mu wax ma ni ma man kat sëñ tubaa laa la jàppe man la ndokk jàppe ma sëñ tubaa moo ma gënal ndax lu tax bari na ñoo xam ni ndomba ga la nu jàppe woon tey suñ leen jubee yenn saa yi ñu fàtte suñu sant wala nuyoo ba du am solo waaye yow nag meluloo noonu ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm bu baax di wax ni kat sama kóllëreeg yow sama giiru dund lay doon wax naa la ni la man ndomba ak ñàkk am ndomba laa yamale sama diggante ak yow ndax li may def jëmale ko si yow xam naa lu tax ma koy def te xam naa fan laa ko jëmee kon loolu dal na sama xel bu baax ñu ngi lay sant di la gërëm te di fesal sunu diggante bu baax a baax di nuyu bu baax sëriñ Basiru Lo alaram di ko siyaare di ko ndokkeel ci bis bi di ñaan mu yàgg ko woote nu yàgg ko wuy si te luñ ci jëf suñu borom nangul na ko di siyaare bu baax sëriñ baara moom sëriñ abdul ahad mbàkke noon koy siyaar bu baax di ko jaajëfal di ko siyaare it waajuróom wu tedd woowu fi jóge di sëriñ sidi maxtaar yàlla na yàlla yokk yërmandeem ak njéggalam ci moom ak mboolem ñam fa fekk ak ña ko fay fekk ñépp euh, bu ko defee noo ngi nuyu mboolem sëti sëñ aale aram loo yi ak sëtaat yi ci turu sëñ badara loo ak sëriñ moustapha loo ak sëñ seex loo jàmm gën mii toog bu ñu leen tuddee rek tudd nañ sët yéeg taar yeeg ñi ci topp ñëpp ñu ngi leen di siyaar di leen ndokkeel ci bis bu rëy boobu di nuyu Baye Njang mii ma feggool muy sama xarit di sama wëllëre nuyoo bokki jàmm gën caaween yëpp ñu teg ko ci loxol sëñ Moustapha Saaw bu ko defee dana yóbbaale bokk yam ko bokkal yëpp ah bu loolu jàllee nag sëriñ Bas noo ngi lay ndokkeel ci bis bi di la ci siyaar ndax lii da ngaa xër rek te bëgg lu baax te fonk sa nit waaye lii nga xamante ne jot nañ ko fee wax rek daanaka doy na sëkk te bis bi bu buñ ko woote woon ba ñëw lii ci sëriñ Badara Lo wax ci maamam loolu képp buñ ko buñ ñaanoon dem rek doy na sëkk euh, ndax li mu wax ci maamam doy na sëkk li mu wax ci sa jëmm ji tamit wax dëgg yàlla doy na sëkk ba tax na kon loolu rek jaroon na woote bis bi waxuma ak kaamil yi ñu fi wàccee ak ñam yi ñu fi togg ak xasaayit yi fi jàng ak dog yi ñu fi def loolu mën naa soowee adduna bépp xaj nañ ci bu ko defee sëriñ Bas ku baax la yàgg nañ koo wax te dañuy continuer di ko wax ndax loolu lañ gis ci moom muy ko fonk nitam ku yëg nitam ku jàpp nitam ku mën a dimbali nitam ku mën a sagal nitam ndax ñoom rek yëkkat ëpp ma fa ëpplewu ma fa samay kilifa rek a fa ne waaye am na fu mu àgg ak man te am na fu ma teg kon loolu loo ñoo ngi ñaan mu yàgg lool te wér bu ko defee yéen waa fédération Fathul Wahabul Karim ñu ngi leen di siyaar yéen di leen ndokkeel di leen jaajëfal ci liggéey bu bii bu ko defee képp koo xamante ne yaa ngi yor micro di wax am nga nattu am nga nattu surtout jamono jii ñu toll nii ci yàqu-yàqu yi ci mbon-mbon yi ci ñaaw-ñaaw yi ci yi ngay teg sa bët te am ci loo xamante ni sa lamiñ du ko ñemee tudd sax nag ba tax na kon nañ bokk góorgóorlu sax ci ndigal bàyyi ay tere te góor góorgóorlu ci liggéey te góor góorgóorlu ci jaamu yàlla te xam ne àdduna bii kenn ku ne sa ndaa nga yor da ngay root bu feesee yaa koy jariñoo ak bàmba ji bari na luñ ci dugal te bokku ci bari na luñ ci génnee tem bokku ci soroxo soroxo ji bari na lool coow li bari na lool woote gi bari na lool riirandoo bi bari na lool te lu ci baree bari du yàlla du yeneen bi du sëñ Tuubaa kon nag nañu bàyyi xel sëriñ bi te delloo si waat suñu xel te xool ñi ñuy àndal xool fi ñuy teg suñu tànk xool kilifa yi liñ bëgg ñu nekk ca waaye ne ab murit nga ab jullit nga te lu la neex def lu la neex wax fu la neex ah yaa yaa jàpp sëriñ bi de yaa boole sa bopp ci sëriñ bi waaye ndax sëriñ bi boole na la ci boppam kon nañ xoolaat sunu bopp te seetaat sunu bopp te yaraat sunu bopp te tegaat sunu bopp ci aw yoon tey déglu ndigal te di ko jëfe ku fi nekkal sëriñ Touba ñu maase takku say ànd ak moom ca la muy bëgg ak la muy mébét ndax ñi fi nekkal sëriñ Touba li ñuy àndeek ñoom bokk na ci daayira yi bu ngeen ci bokkee la ngeen cey dajale ngeen di ko ko indil waaye dajale ba mu ne gàññ nga def ci sa bopp wala nga def ci feneen kooku nañ ko moytandiku di liggéey it kenn ku ci nekk na nga xam ne sëb cër ngi ci te am na loo ca war a def kenn ku ne defar nga sa kër ba mu rafet nga wutu wata wut jigéen def ca sa bëgg-bëgg bopp yaa ngi cay def la nga man waaw ndax bëgg-bëgg sëriñ bi wala bëgg-bëgg yàlla wala bëgg-bëgg yeneen bi ndax yaa ngi cay def dara nañu seetaa suñu bopp ak nit du nax boppam kon nag sëriñ Bass jërëjëf yow de naxoo ñu naxoo ñi nga àndal yaa ngi leen di teg ci yoon yaa ngi leen di jàngal yaa ngi leen di jariñ yaa ngi leen di booleeg sëriñ bi yaa ngi leen di tegtal yoon woo xamante ku ca jaar da nga raw tey ak jërë ngeen jëf maa ngi yëkkati samay kàddu lu doon kàddu yu gudd ndax ñi ma jiitu wax nañu li ñu war a wax lépp ñaan sëriñ tubaa am ngërëmal sëñ Bassirou Lo Ali Aram mi toog sëñ Bass ñun ñi aajowoo ci yow ñun ñëpp tumuranke wuñu de ñun ñun de jaaxle wuñu suñu fit demul suñu xel dal na ndax xam nañ ne ñaan yi ñuy ñaanal mag ñuy fekk si te loolu ñu ngi koy sàkku saa su ne ñaan gi ñu la war a ñaanal nag bàdd muy wax na ko yàlla na ci yàgg asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu je suis honoré d'être là ce soir déjà et de pouvoir prendre la parole euh, c'est une situation assez compliquée pour les Réunionnais mu ne mi ngi am mbégte tey ci jataay bi pour pouvoir avoir la chance. di euh, xam ne am na tey tawféex maanaam. d'approcher un homme que Serigne Bassirou Lo Al Yaram. jege ak taqaloo gu mu taqaloo ak Serigne Bassirou Lo Al Yaram. j'ai prendre quatre avions. nee na jël na ñeenti avion imaginez-vous la chance que vous avez. nee na xool leen chance bi mu am foofu. Euh, je vous demande de beaucoup prier pour nous pour la voie de Serigne Touba se développe. dans notre pays. nee ñu ñaanal leen yoonu Serigne Touba wi développé ci seen réew ma. car le Réunionnais à la base il n'est pas musulman. ndax nee na île bi mu nekk muy île de la Réunion seen base dégg dëgg duñu ay julit et l'islam tel que nous a enseigné Serigne Touba. nee na te l'islam moo leen di jàngal moo di xamal Serigne Touba. lui permet d'embrasser cette religion tout en conservant ses valeurs sa culture. mais pour ñu xam taxoo ak culture ak reli maanaam importance bi religion boobu ak saqaafa bi mu am muy diine l'islam. c'est l'université l'universalité de l'islam nee na mooy universalité de l'islam mooy daj gi islam daj àddina mel ne san jant bu fenk noonu la l'islam mel ci àddina bi léegi incarné par les enseignements de Serigne Touba nee na bu fekkonte ne du wul njàngam ne Serigne Touba kon Serigne Touba moo daj àddina bi alhamdulilah nee na alhamdulilah ñu sant yàlla ci loolu euh, nous avons de relations avec notre Serigne par téléphone nee na mi ngi am ñi ngi am seen relation bi ak Serigne Bass ci téléphone rek la ko yàlla dogale woon. nous n'avons pas forcément la chance de venir tout le temps ici pour profiter de sa présence de l'ambiance. nee na woon nag jot ak chance su nag di ñëw tey ci jataay yu mel nii ba yàlla dogal tawfeex bu ñu am ko bis naka tey jii. Eh, je vous demande de prier pour que cette lumière. nee na mi ngi ñaan ñu ñaanal leen pour yoon woowu nga xam ne suñu borom leeral nañ leen ko ba ubbil leen ko. se répandre. déjà dans notre pays et puis dans le monde entier. car Serigne Touba c'est pour tout le monde. nee na mu dem ba daj moom jëmmi sëñ Touba jooju itam jaar ci Serigne Bassirou ba daj ci seen réew ma ak àddina bi yépp ndax njariñ la. jërëjëf. nee na jërëjëf wasalaamaaleykum. Baye El Hadji nee na mi ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam di sant Serigne Touba bu baax. di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg lool lool lool te mu ànd ko wér. nee na murit yépp ak jullit yépp. mi ngi ña mi ngi ñaan nañ ko daan ñaane la sëriñ saalix nañ àndandoo di ko ko ñaanal lislaam bi yaakaar na ko yoon wi yaakaar na ko ne mi ngi yeesal njaalam ci sëriñ si di Maxtaar Mbàkke di ñaan yàlla dolli yërmandeem ak i xéwalam jëfam lépp sëñ Tuubaa gërëm ko te wóotu ko ci njaboot geeg lislaam bi ak taalibe yi nee na mi ngi nuyu sëriñ Basiiru Ali Aram nee na mi ngi nuyu ak njabootam sëriñ Moustapha ak sëriñ Bada ak njabootuk boppam gi mi ngi nuyu mbokkam sëriñ Cheikh faatim Seck mi mu dendal mi ngi nuyu bokk yi fi teew yépp mi ngi nuyu waa xur wi mi ngi nuyu Touba ak waa Mbàkke bàyyiwul kenn Baye Alaaji Moustapha nee na lim bëgg a wax ci Serigne Bassirou Lo loolu su ko waxee dina jël temps bi yépp waaye daf ciy wax tuuti rek waaye dafa ma wax ne nag dafa demee ni kàddu moo foor waaye bi sëriñ ba da waxee boobu dee mënoon nañoo jox Serigne Bassirou Lo rek mu wax ñu ñaan te ci liggéey bi ndax lu mat a wax rek sëriñ Bada wax na ko sëriñ Bada yaag say mag ak say rak ak seen way jur wi yal na yàlla yokk seenu fant dolli seenu wér ci barke Ahmadul Xadim nee na moom day dafa sant yàlla bu baax ndax sëriñ Basiiru defe na ne ñépp a ngi waaye am sëriñ Basiiroom la nee na na leen wóor ne kum def révérence la idolam la kum bëgg la kum sopp la ku muy diisool la ci lépp lu muy def ni ko maître ma dikkee waxe sànq de nee na day defe ne moom ni mu koy defee ak Serigne bas kenn fekku ko ci. asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di ziar di tàmbali suñu ziar suñu jëwriñ suñu sëriñ suñu yaakaar tey ëllëg Cheikh Bassirou Lo Al Haram may sàkk su mbooloo mi ñëpp ñu ñaanal Serigne Bassirou Lo mu yàgg fi ànd ak wér képp ku fi teew maa ngi sàkku di la ko dagaan di la ko yelwaan ci sa làmmiñ nga ne Serigne Bassirou Lo Al Haram yàlla nag suñu borom yàggal fi loolu ànd ak wér. dégguma ko de ndax ak yàggam dama koy wax saas ne nun de mooy suñu njëriñ ndax moo tax tey ñu doon nit moo tax tey ku nu gis nawloonu moo tax tey ku nu gis bëggunoo noo jur sëriñ Bas ba muy ñëw Caara Azur ba mu ñëw Tëngéej fekk na mu jafe lool ñu dëng lool sax danoo dëngoon ba egg si lool mu ñëw jubbantu nu def ñu ay taalibe Sëriñ Bamba yu dëggu def nu ay jullit ak xan kon dañ koy ka sante bu wir ñun Sëriñ Bass tax na ni dara lenn feesu suñu bët barke Cheikh Khadim Sëriñ Bamba kot lañ gëm nag kese waaw moom nag mu ñëw tàggat nu si yar nu si defuñu ñu fulla fayda ak fit képp ku bokk Fatou Wahab Karim ku ñàkk fit amut képp ku bokk Fatou Wahab Karim ngay gis mu doxee maanaam doxi doxin bu doy di amut kon sëriñ Bass yàlla na fi yàgg te wér sëriñ Khadim dis-toi qu'à partir d'aujourd'hui tu es le représentant de Fatou Wahab Karim à l'île de la Réunion Et Inch'Allah, on sera en contact avec toi pour l'élargissement de Fatwa Abdou Karim à La Réunion et l'élargissement du euh, Amadou Bamba chez vous. sëriñ bi wax ji mu gudd mu gàtt mooy yàlla nga gudd fan yàlla nga wér di la ñaanal nga ñaanal at noonu xam ne ñi jóguloo si ay loo danoo bëgg bokk si milliardaire Sëñ Bamba yi jàmm gën gii waxoon naa ko daa waxoon naa ko dama ne dama bëgg dañoo bëgg nun def ko mu doon attraction wu Touba bi ñu nekk nii e yàlla nañ suñ boroom jàppale di santaat nag sëñ Alioune Badara loo di sant tamit sama sëriñ sama xarit di suñu xalifa sëriñ Cheikh di ko jox nuyoo bi mu jotal ko rakkam yëpp rakkam yépp waaw rawatina ki nga xam ne moom yàllaa ñu boole muy bàyyilaat di ko ñaanal tamit mu gudd fan ànd ak wér e, maa ngi jégalu bu wér nag ku ma tuddul mu xam ni sama xol tudd na la ndax dañ ne olof day naan ku lim juum waaye man kàddu nag du gudd kàddu yi kilifa la rek kàddu yi cant la kàddu yi ngërëm ak wax ci turu Fat Wahabul Karim jigéen yi ñuy sant di gërëm mboolem képp ku ne ci baas bi sant nañ la gërëm la ci turu Fat Wahabul Karim di ñaanal suñu sëriñ sëñ Basir loo Ale Aram mu yàgg fi lool te wér ak njabootam gépp di gërëm nag sëñ àll Diop mi fi jaar léegi dafa xel rekk ndaxte ñun waa saw bale lu ñu defal sëñ Bas xeeb nañ ko defalaguñ ko dara nag dañuy ñaan yàlla lii ngaa lay ñaan ñu bokk ci milliards milliardaire sëñ Bas sëñ Touba yooyu sëñ Bas am ay milliardaire am bu keroogee jàmm gën gii dana mel ni panaar ndax ñun amuñu bëgguñu dara ku dul sëñ Basir Lo alaaram yoonu sëñ Touba yi yaatu na lool waaye ñun mooy suñu bunt ñun dañ naan sax ñun moo ñu xamal sëñ Touba ndax saw beekat ñun ñii ñëpp ku ci sa yaay wala sa papa am nga feneen foo ne woon. waaye sëñ Bas ba mu ñëwee moo ñu gindi indi ñu fii nag fi nga xam ne fi la këru dëgg gi muy Touba gi lool duñ ko di si tàyyi di ko ñaanal ndax daf ñu defal loo xamante ne lii ndax nekk murit kat ku yàlla gërëm rek a koy doon du ngóor a yàlla moo lay bëgg dugal la ci yoonu sëñ Touba wi mu jaarale ko nag ci sëñ Bas moo tax fu ñu toll dañ koy ñaanal wér ak wér di ñaanal njabootam gépp may gërëm nag. jigéen ñi nga xam ne ñoo newoon soo ba léegi ci waañ bi ndaxte ñi ci naaj bi ñoo fi bàyyi ñi ci ker gi te soo ba léegi ñu ngi foofu jigéen ñi may beral nag benn cant muy sëtu maam aale aram looyu jigéen ñi ndax tey dañoo def lu rëy ca waañ ba te ku def lu rëy it war nga koo dégg ndaxte day tax a sawar bu ëllëgee nga gën a sawar ca la nga doon def mu neen di wax ne ñun dañoo yaakaar ne sëñ Bas ñoo ko moom ba luñ ci def dañ koo xeeb kon nag ku ci ñëw def jàppalañ ci lu mu tuuti tuuti rek ñu la koy gërëme di la ko sant ndax am ñoo ko bokk sax ndax ñoom ñooy sëti aale adam looyi waaye ñun ñun ñi ñoo ko moom ndax ñun ñooy wàkk sëñ bas ndax sëñ bas mooy ñu teg fu mu tegul kenn bu ñu xësee ba taxaw waxatu la kenn du soxna du doom taalu bi rek la gis ndax moom day wax ne ay taalu bi ñoo ko gën a lépp mu defal ñu ni mu defalul kenn lii àll jiw wax dëgg la de amul benn taaliba sëñ mbas bu mag bu amul kër am oto am looy suturloo te duñu dara de duñu ay ministre duñu ay député waaye sutura am nañ ko ndax yàlla jorante bi ak suñu sëñ bii ñuy kontaan nag di suñu gan gi ñu am mu jóge Île de la Réunion ñuy wax sëñ Xaadim soyez le bienvenu parmi nous nous sommes très honorés de votre présence ici parce que vous vous avez montrer ce que Serigne Bass a fait parmi la dans le monde entier je dis toujours que Serigne Bass n'est pas un marabout national il est international aujourd'hui vous êtes la preuve tangente que Serigne Bass est un international maa ngi lay gërëm di la sant. mën naa wax ne mboolem njabootul Serigne Bassirou Lo ak ci turu sët yëpp bu sëñ Bada waxee rek daanaka suñu kàddu sax jël woon muy jóg ndax ay kàddoom. yóbbaale ne suñu kàddu ñun ñëpp kon cat da doy rek waaye mënoon naa yi mënoon nañoo yamale kàddu yi ci foofu ci kàddu yi suñ bala kon nag ñu ngi sant di leen tatagal ci bu sell bu tedd ci bisu taarix bii nga xamante ne njabootu ak famille ñu ngi koy amal at mu jët ci kilifteef ak njiital Serigne Bassirou Lo Allé Aram ñuy ñaan suñu borom mu gën ñu koo sàmmal gën nu koo yàggal ñu ko ci nga xam ne bis bu bis bu màgg boo xamante at mu jët ñu ngi koy amal di ci fàttaliku jàmbaar ju màgg ju tedd jooje nga xamante moo àndoon ak Seexu Xadim di sëriñ Ali Aram Lo ngir jëfe waxi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne wax na nit ki bu fi jógee léppam dog na ba mu des ñett loola tudd na ca doom ju baax ju fi bàyyi ginnaaw mu di ko ñaanal ak bëgg ñu jariñ ci dundam gu tedd googu nga xamante ni lépp ay leçon la woon ak ay xibra comme ni ko alxuraan waxee ne gaa yu baax yooyu buñ leen di fàttaliku dafay baax ndax fàttaliku leen dana tax ñu jàngati ci ñoom ay leçon ak seeni jikko yu baax yañ ñekke woon pour ñu mën caa jukke ba jaar ca mën a defaru ak it ngir jokk ak mbokk gi nga xamante ne bii Moustapha sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax ne man kaana yuminu billahi wa yawmal axir fal yasim rahimahu ndax mbokk yi fi daje rek depuis booba léegi am na ñoo xam ne bañ ko jëg gisanteeg léegi yàgg na te bis bii rek mooy tax ñuy gisee kon loolu rek war naa tax sëñ bi taxawal bis bii kon ñu ngi sant suñ borom mi nga xamante ne bii defal nañu ñu am occasion daje ci pàkk bu tedd bii di ñaan suñ borom mu nangul ñu lépp luñ fi jëf ca mu dëpp la ko ngërëmal sëriñ bi eh, di sant mbooleem ñi nga xamante ne bii teew nañ fi di sant mbooleem ñi nga xamante ni ngeen bàyyi seen yitte yëpp bopp ba soo ba léegi toog ànd ak sëñ bi jotaay bi yëpp kon loolu ñor gi leen lislaam ñor loolu rek lay firndeel moo tax ngeen bàyyi seen yitte yëpp ànd ak sëñ bis bi kon nag ñu ngi ñaan suñu borom mu fayal ñu leen ñu ngi cant gi jiweel cant gi képp koo xam ne jàpp nga ci bis bi sa lo dugal nga ci sa loxo ba bis bi réussir loolu nag ñu ngi ciy jagal ñu ngi ciy jagleen ak cant ak ngërëm fédération Fathul Wahabul Karim ak ak daayiru tay siiru asir bi nga xam ne mooy sët ak sëtaat sëriñ Aly Aram Ndoye di ci jagleel mbooleem dëkkandoo yi nga xamante ne bii ñoom lañ àndal dëkk ci koñ bii boobu léegi amuñu jën yitte lu dul bis bii ak lu koy jagal di sant gan ñi kedd ñi nga xamante ne wuyus nañ muy kilifa yi fi teew yëpp di kilifa yi njabootu sëriñ Tuubaa gi fi teew suba léegi ak seex si ak politiciens yi ak presse bi yëpp bawuñu kenn ak mbooleem mbokk yi nga xamante ne bi jógee nañ ci gox yi bëree bëri di wax ne bis bi ak daayira bi nga xamante ne bi mooy sët ak sëtaat Sëriñ Ali Aram Lo yi nga xamante ne bi dañ koo def ngir jokk ak mbokk gi nga xamante ne bi yàlla moo wax ne wallaziina yasiluuna maa amara allaahu bihi an yusal Moustapha sallallahu alayhi wa sallam wax na arrahim kon nag ñu ngi leen di sant seen jëmm yi ci seen teewaay ci pàkk bu tedd bii ci di jàmm gën ñaan ngeen ñaan mu suñu jawriñ ji nekk suñu kanam di suñ waajur di suñu sëriñ di suñu lépp suñu yaakaar tey ëllëg di Cheikh Mouhamadou Bassir ak mbooleem njabootuk sëriñ aale aram loo gi yëpp suñu borom dafa leen fan gudd ñaan nga yàgg fi te wér suñu sëriñ biit yàgg fi te wér muy sëriñ sëriñ Abdourahmane mi di ñaani it boobu nga jàlleel ñu ko ba ci xalif Jean Lémourou Cheikh Mountakha Cheikh Mountakha Mbacké Bachir yàlla na fi yàgg loolu te di waxit ni ñun ñooy nag léegi suñ turu bopp ndax yaakaar guñ fi yaakaar ak dimbal goo njàgg dimbali fii ci Touba. bu ñëpp waxee fii ñëpp xam nañ ni euh, taalibe Sëriñ Touba bu baax nga boo xam ne nii defar nit rek nga fi nekk yërëm doomu aadama yi leen dimbale ah di sa loxo du jóg ci ñoom lu fu message sëriñ Tuubaa war a jàll ci àddina nga jàllale ko fa ci loolu nga nekk guddi ci nga nekk bëccëg luy dëgg yu xam ni yàlla rek moo tax ñuy wax ñun nag liñ ci duggee mooy wax ni liñ fi daan jàllale ci message du président ci këru diine yi rawatina pekku yi pàkk yi nga xam ne mag ña ko sancoon muy pàkki leer te yàlla te ko seen loxo yi ñun ñuy seeni i taalibe yal nañu yàlla dimbale te l'islam da koy agressé dafa bëri di koy agressé dafa bëri à travers le monde yoonu murit li koy agressé bari na loolu lépp nag day dëgg moo tax te l'Iblis moom du bàyyi mukk am na suñu kilifa gu baax wax ne noon boo xam ne moo la mag fop ba ngay judd mi ngi teew ëpp lay pexe li mën mënoo ko te du bàyyi te ci biir boo génn ci biti doon leneen bañ a nekk koo xam ne nii lu ñëw yóbbaale la parce que àdduna bi fi mu toll nii boo ko xoolee li ñuy gàkkale lislaam lu ci bëri occidentaux yi ñoo ko orchestré tudde ko islamisme pour wane nii nit ñi naan xeex nañ bor bu nekk léegi ñu ne nekk nañ def loo xam ni sax am na yoo xam ne ñu mbubboo l'islam di rey ay jullit di yàq bu tañ na teñ ni ay jullit lañ nekk ci seen gannaaw di di di ko doxal nag te bañ koo wax rek di ko bàyyi mooy dem sëriñ bi kat ñun ñëpp ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi kilifa yu baax yi ñu ngi lay ñaan mais bu ñu bëggee loolu ñun taalibe yi dañuy fexe ba li sëriñ Tuubaa bëgg ñu nekk ci suñu njaboot yi aussi muy xale yi doom yi ñu yar leen yar bi sëriñ Tuubaa bëgg